koy jàpp dambaat na léegi dambaat na léegi jàpp leen jàpp leen jàpp leen Mourar kay kay kay kay kay kay. Bunu da kadar takmayın. mais lii la Hey, hey, hey! Hadi bakalım.